A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa inni ahidu abika wa surriyataha Rabbi a'udzubika min amasari sayatin Wa a'udzubika rabbi an yahdurun Rabbi sadri wa yasir li amri wa ahlul huqadatan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 Oke, kon dikkati nañ ak yeen ci seen seen bu am solo bi muy le grand secret wolof di seen bo xamne da leen indi lenn ci ay njariñ tay ñu fasiyene leen indi njariñ lo xamne njariñ lu am solo la naqari wut def lu yomba def la ta lu bare bare bari ay njariñ la kep ko xamne man nga ko fexeel ba def ko lu ama ama am solo la muy njariñ bi ñu leen indi waye bala ñuy gëna sori ci secret bi rek wala ñuy gëna yaatal dañ lay wax yow mi gan ci page bi bu fekke ne abonné go ñoo ngi day ñaan nga abonné ci chaîne bi ta sem vidéo bi partage ko mu gëna yaatu li tax ñu bëgg ngeen di partage vidéo yi moy mbolé vidéo yi ni duggal fi yépp ay vidéo yi njariñ kessa te te waye def ki tamit du dara lu dut njariñ yi nga xam ne yor nañ ko ñu partage ko ci àdduna bi ba ñëpp kenn ku nekk mën kaa jëriñoo di wax yow mi nga xam ne da nga bëgg a def lu seet wala nga bëgg a def lu listixaar dañuy def seetu ramlu à eh, distance dañuy def tamit listixaar à eh, distance benn ci ñaar yi boo ci bëgg rek inshallah allah rabbi bon contacté ci numéro bi muy 77 684 28 28 wala nga contacté ñu ci numéro gambi bi ñaar yépp am na whatsapp inshallah allah rabbi dees na la defal li saxaar gu leer nañ inshallah bu dé mbokk yi nga xamné dañuy faral di yittewoo garab yi kàttan yi muy garab yi musxam yi wa jamono ji ñu wax ak yeen garab yi disponible na kep ko xam bi to nga ci moo xam nga nek ci rew mi wala nga nek bitim rew te yitti woko man nga ñu contacter inshallah allah rabbi fo man di nek rek di nga ci jot ci nim gëna gaawé inshallah gaawee allah mbokk yi nga xam ne yitté wo bokk ci groupe whatsapp bi. mën nañu contacter ci même numéro bi waaye nag group bi am na ay sart yu ñu ciy bokk incha allah képp koo xam ne contacter nga ñu rek te bëgg ca bokk boo ñu contacter incha allah dinañ la wax sart yi yi dañuy dikk ak yéen ci secret bii ñu ne indil tey secret bu ko gën a gaaw ci toj liggéey du ma ne amul de waaye néew na. secret bu ko gën a gaaw tamit ci it dindi cat du ma ne amut waaye bëriwut muy secret boo xam ne du lu jafe def lu yomba def la njëkk nga koy def tamit am na benn sarax boo xam ne moom ngay def waaye lii day loo ne boo ko defee ba jëfandikoo ko di nga yëg ci yow taw sa yaram taw feex ak ak woyof goo xam ne di nga ne lii moom ndax dëgg la lu yéeme laay wax lu yéeme yéeme moo tax ma bëgg ngeen teew la ko bu baax a baax secret la boo xam ne képp koo xam ne da nga jàpp ne lii di sa yaram wàllu liggéey da cee bari fexeel ba def ko boo ko defee incha allahu rabbi di nga ci am tawféex bu baax secret la boo xam ne képp koo xam ne da nga jàpp tamit ne lii di wàllu cat daf la sonal fexeel ba def ko boo ko defee ding nga ci am tawféex bu baax a baax a baax kon ñu gën dikk ci ak yéen ci secret bi mbokk yi secret bi. bismillahi rahmaani rahim ngay njëkk bind waaye nag par xaraf nga koy bindee comme ni nga ko gisee nii boo si noppee nga bind fatiha ñu commencé alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin fatixa bi nii nga ko gise nii dañ ko bind par benn xaraf xaraf yi benn du taqaloo da ngay taqale xaraf yi bismillahi rahmaan rahim ngay njëkk bind fatixa teqale xaraf yi xaraf bu ne ak moroom yi dañuy teq par benn xaraf nga koy bind nga bind ko nii bind ko ci ñetti kayit yu wuute kayit yu wuute boo ko bindee ba pare njëkk nga koy jëfandikoo da nga wut ñetti nen nen bu si nekk nga jàng ci faatiha dem ba ci digg yoon muy séri bu yoon ñeenti yoon yu dajee nga taxaw ci digg ba ñaan say soxla toj nen bi waaye boo koy toj ginnaaw nga koy toje boo noppee ci loolu nga jël këyitu ñetti këyit yi nga def ko ci benn sewo fexé ba sangu ci juroom ñaari fan yu tégalo njëkk nga ci sangu da nga ci naan bokk yi de nuru na lu gatt waaye nak fexé ba def ko allahu akbar secret bu yéme ngi né kon xamna naa secret bi dañ amone yéene tay partage ko ak yéen di wax yow mi gan ci bâche bobu ne kon nga abonné yow mi bëgg def lu set wala nga bëgg def lu li saxara licence man nga ñu contacter ci numéro bi incha allahu rabbi dees na la defal seet gu leer nañ wala listixaar gu leer nañ incha allahu rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf